asalaamaaleykum Mbàkke sab géewe lay nuyoo ku réeréw turam nag Babacar moo di aw turam mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen ndokkeel di leen ñaanal jàmm ak xaalis <laughs> di ñaan képp koo xam ne mi ngi dégg suñu kàddu rek ak fu mu mën a nekk yal na ko yàlla defal jàmm fa mu nekk du jaxe Xadim Rasul di leen présenté seen émission xam sa gént ci seen sit bi ñu tudde 28 pro 28 pro moo leen di indil émission bu am solo muy xam sa gént xam sa gént nag mbokk yi nekk loo xam ne lu mënul ñàkk la xam naa bu ngeen dee teewlu bu ngeen commentaire bind seeni laaj buñ ñëwaatee danañ ko tontu incha allah ngeen mën ko dégg waaye ci kanam tuuti buy démarré itam di ngeen ko mën di am en direct ci seen site bii di 28 pro nga xam ne dañuy toog jàkkaarloo ak yéen di wax ngeen di ñu dégg bu ngeen laajee ñu tontu leen en direct loolu xam naa ci kanam tuuti lay doon waaye dañ leen defal annonce bi rek pour ngeen xam ni 28 pro mu ngi ci seen bëgg-bëgg di leen waajalal émission bu am solo waaye nag bu ngeen gisee bande annonce bi rek ku am laaj bu mu bëgg laaj mën na ko laaj bu ko bindee rek incha allah danañ ci ñëw mbokk yi nag gént nekk lu am solo ci diine islaam ak ci dundu doomu aadama gi rek ak fépp fu mën a nekk ndax buñ xoolee bu baax a baax ci diine yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam ci nettali wax nañ ni bu musaan julli fajar ba noppi daana woo saaba yi radiyallahu anhum ajmahin di leen laaj kan moo gént dara ci yéen bu fekkee am na ko gént dara mu di leen ko firil léeg-léeg itam am ñu ñëw ci moom indil ko seeni laaj ci wàllu gént léeg-léeg mu firil leen ko waaye léeg-léeg sax mu yabal leen ci aboubacar siddiq su sidqi wal wafa radiallahu anhu mu firil leen ko gént itam mënuñu koo tudd te tudduñu yonent yàlla ibrahim nga xam ni moom la sunu borom wax yonent bi ne ko mu def ko muy idolam muy royukaayam bàyyi ko xel yonent yàlla Ibrahima moom am na rapport bu mag ak gént ndax sunu feet gu mag gii ci diine di tabaski ci gént la ñëwee ndax dafa waxoon Ismaayil doom ja wala kenn ci ay doomam ne ko yow sama doom dama gént di la rey dama gént di la rendi fa changé rek doom ja ne ko yow sama bàyyi defal liñ la digal nga xam ni damaa gént di la rendi mënu ko defal liñ la digal kon mel na ni ndigalul yàlla jaare na ci gént ñëw ci ab yonent ba moo tax jamono jii ki ñëwee rek <laughs> nga gis borom kër yu bari daal di stressé di wax ni amaguma xar amaguma xar ak xartuma ya cay dem kon loolu mooy wane ni gént du dëggu la te ba mu ko lay wane ni suñ boroom moo ko wanit ba mu tëree doom ji koo rendi rek la yebal Jibril mu ñëw wottee ko am xaram mu mag am xaaf mu rendi ko ñu tabaskee ko loolu mbokk yi firnde la ci ni gént lu dëggu lu am solo ba tey buñ delloo ci yonent yi ba tey yonent yàlla Yuusuf moom itam ci ak ndawam bi muy nekk ndaw rek ci la waxoon ni yaa bati yow sama bàyyi inni raaytu ahada xasra kawkaban wasamsa walxamara raaytuhum li saajidin yow sama bàyyi man de damaa gént fukki biddiw ak benn ak jant bi ak weer wi ñuy sujjóot ci man ñu di ma sujjóotal ah loolu de rëy na ba mu ko waxee rek baayam yaqub alayhima salaam yal na yàlla doon leen jàmm mu ne ko noppil yow sama doom loolu bu ko nettali ndax damay ragal sa mbokk yi fexeel la wala ñu fexeel la ndax loolu day wane ni am na ay may yu am solo yu la yàlla war a may waaye mbokk yi buñ seetloo gént yontu yàlla Yuusuf googu xam nga yontu yàlla Ibrahima dafa gént gént gi ci guddi rek xëy wax doom ji ñu daal waajal pour mu rendi ko mu ci waxtaanee njaboot gi mu rendi ko xar ma ñëw ca sensé yontu nag bi muy nekk xale gént gént googu mbokk yi yóbbu nañ ko ca bënn sànni ko fa ñu dem jaay ko ca marché ba boro buur ba wala premier ministre ba jënd ko yóbbu ko këram ñu yar ko fa ba mu màgg boro doomi buur ba xeemeem ko di soxna soxnas buur ba wala premier ministre ba soxla ko di ko sàkku ba am jafe-jafe yi ñu tëj ko ca kaso ba bañ ko tëjee ca kaso ba ñaar ñam fa nekkandoo lan kayaroon naan ak buur bi ak lekk gi ñu nettali ko seen ñaari gént ya mu firil leen ko ñu génn ba buur ba gént géntam yu am solo yooya ca lañ door a génne yontu yàlla ca kaso ba daal koy dénkaat màngasini mesra gis nga may ya daal di ñëw ca wax ne suñu borom xamal na ma firinu gént yi ba noppi defal ma nguur yusufa ñu dénk ko màngasini misra mu génn ci kaso bi rek daal nekk buur ba doomi bàyyee ñëwaat fa di jënd ab dund ndax gént googu mbokk yi buur bi dafa géntoon juróom-ñaari nag yoo xam ne dañoo duuf am juróom-ñaar nag yu yooy ñëw di leen lekk mu géntaat juróom-ñaari gubi dugub yoo xam ne dafa am pep am juróom-ñaari guub yoo xam ne amul dara ñëw laxasu yooya baray leen bi mu ko laajee nag firikati gént yépp xamuñu ko ñu ne ko daal ak xasu axlaam loolu daal gént gu laxasu la rek leerut biñ demee nag ba suñ borom muri seen xel ñu xam ni kene woon ca kaso ba de Yuusufa ko kenn ka ne ko am na ku mën a firi gént ca kaso ba ma nga fa bi ñu woowee yontu yàlla Yuusufa mu ñëw mu ne ko juróom-ñaari nag yi nga gént ñu duuf mooy juróom-ñaari at dina am ci kanam yoo xam ne juróom-ñaari at day naat luñ bay day ñor lépp day am xéewal day am mooy juróom-ñaari gubi dugub yu am pepp yooyu waaye dina am yeneen juróom-ñaari at yoo xam ne ñu bay dara du ñor ba mu ko waxee buur ba ne ko xàkk saa lii laa ko génte wal sama xol féex na li ma wax daal leer na moo tax gént buñ la ko firilee rek ci ni mu amee ca sensé rek sa xol daf koy nangu da ngay mel ne ku yan woon yenneeku da ngay xam ne li nga doon laaj except liñ la doon moom la. ba mu ko defee nag buur ba ne ko kon nu ñuy def mu solution mu ne ko dañuy tabax magasin bu mag ci misaal day mel ni Touba ba Mbàkke rek set kilomètres carrés wala lu ko ëpp ñu def ko ab magasin bu mag tëj ko daal ubbi bailleur de fonds xaalis bi ñëw ñu ni lu waay bayete lu mu doon rek bu ñoree boo ñëwee ñu jënd ko ah ñëpp dugg ci tool yi di bay xam nga loolu bu ñu ko defoon Sénégal rek nga daal di gis xéwal daal di am buñ ñëwoon lu waay bayete daal dinañ ko jënd péré bu baax léegi ñëpp dugg ci tool yi bay waaye comme da ngay bay ba noppi léeg ñu naan dinañ ko jënd ak wala dina defal ay bon yu mel noonu xam nga moom day defaat boo ko yonent yàlla Yuusuf defee ñëpp di bay di ñëw di jaay si lu ñëw rek mu jënd lu ñëw mu jënd ba ati bekkoor yi ñëw léegi amatuñ luñ jaay léegi jox na leen xaalisam ba mu jeex waaye jël na seen mbay léegi amatuñ luñ jaay léegi nag ñuy ñëwaat ci moom di jënd si waat ab dund ndax luñ dara amatut bekkoor bi ñëw na ñuy indi muy jënd ba seen xaalis jeex amatuñ xaalis ñuy indi seen i takkaay mu di leen ko jaay ci juróom-ñaari ati bekkoor yi ñuy indi seen takkaay mu di leen ko jaay ci biir diggante boobu nekk la doomi bàyyee defaat groupe nag ñëw di jënd si ab dund ñoom itam comme ñëpp ba ñëwee nag comme moom xale la bi ñu koy sànni léegi màgg na mu xàmmee leen waaye ñoom xàmmee wuñ ko ki nga xam ne mooy doomu ndeyam moo ko gën a jigéen mu jël nattukaay gi mu doon natte daat koy dugal ci ndabam biñ génnee mu yabal kenn ci ay bëkk néegam wala ay ay secrétaire am yooyu ne ko dabal ma jëgg gi day dem dañoo sàcc sama nattukaay gi boobu mu ngi leen bëgg a pincé pour xame xàmmee mbokk yi biñ leen dawee ne leen Eh, ayatuhal hiiru innakum la saarixoon yéen giir gi taxaw leen da ngeen a sàcc ñu ne ko sàcc ñun de suñu bàyyi ku baax la gis nga nañ ko tontoo suñu bàyyi ku baax la tey rewuñ lool de mun leen en tout cas daal sàcc nañ sama ngise gi léegi nag moo gisee ci yéen xam ne yéen moo ko gisut xam ne du yéen yàlla dogal bi ñu ko wisitee rek ñu gis ko ci mm, mbokkum Yusufa moomu am na ñu wax ne Binyamin la noonu la tuddoon am nañu wax leneen boo ko defee bañ ko ca gisee ñu ne ah, wax dëgg yàlla ay yéen de kii lañ ko gis ci moom ñu ne ko ah comme moom lañ ko gis ci moom de pexe amul waaye kii de dañoo amoon mbokk moo xam ni dañoo àndoon ak moom mu sànku te ba léegi suñu bàyyi dañu cee mere dafa jooy sax ba bët yi muuru te buñ demaatee waxaat ko mbokkam mii réer na comme moom la ko doon xoolee dina métti kon jàppal ci ñun kenn te bàyyi kii mu dem Yuusuf ne leen mukk man kay ki ma sàcc lay jàpp waaye du ma téye keneen di bàyyi sama sàcc booba ñuy bëgg a téye doomu nday ji rek pour feeñu mbokk yi yàlla dogal bi mu téyee kooku ñu dem wax ko seen baay mu leen loolu mën a demee sàcc ci sama njaboot léegi yàlla dogal bi ñu demee ba jaaxle wax nañ ni Yuusuf daa jël mbubb mi nga xam ne moom la ko baayam sololoon bañ koy sànni ci bënn nga jox leen ko bi ñu demee sànni ko seen bàyyi mu xenc ko rek daal di gis bët yi daal di ñëwaat fekk daa bët yi daa muur woon ngir jooy gum daan jooy Yuusuf ba yàlla dogalee nag seen bàyyi ne leen nañ leen dem seeti ko ñu àndandoo seen yaay seen baay ak fukki doom yi ak benn yëpp wala fukki doom yi kenn ko téye nañ ko biñ ñëwee ci pale bi nag toog mu di leen ki questionné di leen laaj ñu naan ko ñun sàcc ñu ñun ñu baax lañ nàngam di wax seen mbaax ak seen i maam ah yokkuma ca songum xeer di wax ñun fañ bokk suñ maam yëpp 33 maam yi dameel yi ni ko Sénégalais yi di waxe di wax seen baax baax yu ne leen ndax yéen ñii rek la woon amul ku manqué ah seen xel xaw a ñaaw